Bon. Bonsoir à toutes et à tous les citoyens du net. Quel plaisir, messieurs, dames, ce soir ñu ngi seeti une actrice qu'on présent présente plus nga xam ni euh, c'est l'actrice vedette de la série euh, série sénégalaise donc Kodou moom la ñu seet si tey ci bésam bii nga xam ni euh, ba mu juddoo ba léegi mi ngi koy xaar moom mooy ñu may ko borom kër mu sëyi donc Kodou euh, par ma voix toute la presse tey ñu ngi lay nuyu di la souhaiter heureux ménage tey ginnaaw bi nga xewlee gis sa nawle actrice yi sa mbokk yi la famille est donc yan kàddu nga njëkk am envie yëkkati tey Kodou ginnaaw bi ñu la nuyoo. xëy naa leen bu baax a baax a baax a baax ah, xanaa dama kontaan rek ndax ku nekk amoo lu dul sa bis xam nga. dama kontaan daal sérieusement. sa xol sedd na daal. waaw torop sax. kan mooy sa fan ngeen xamante ne ñaar seen rencontre kan moo njëkk ko ba sa morom kan moo njëkk ko ba sa morom ah moom moom moo njëkk la suite lañ boobu moom yàgg na ma gis yàgg na jooy si yow quoi mu laaj le numéro abordé la woo la waxtaan ak yow waaw fekkee jooy nga ci moom bu yàgg non non waaw ah, boo jooy nga woon ci moom d'accord tey sa jëkkër euh, góor yàlla la yan qualité nga gis si moom ba mu doy la nga euh, am yéene doon soxnaam tey. waaw kooku nag nee naa du sama boroom kër sama sama xarit la. sama frère la. sérieusement ndax taxawu na ma fu nekk. man nag moom ba ñuy ànd dara doonul dara la ba tey jii dara doon dara mu ñëw fekk ba may business nekk ci sama liggéey daf wàññiwul dafa yokk sérieusement moo waral tey jii ma kontaan bu baax ci moom. mu yónni ay mbokkam ñu ñëw ñaan si ma ma fas yéene koo sëyal sëy bu rafet juróom ko njaboot gu barkeel. Euh, ku wax ko du xam ko ci milieu cinéma donc euh, mu doon milieu boo xam ne euh, concurrence yu bëri na milieu la bu xaw a rude donc xale jigéen ñi ci nekk yëpp yàlla mu ngi leen di teral ñuy teel am jëkkër ban secret moo nekk ci jouer série ba ku ko def rek boo defee première saison avant deuxième saison sax ñu am sens su dégg alxayri qu'est-ce qu'il y moo nekk si ginnaaw. waaw série yi xam nga visibilité la visibilité la aussi tamit genre tey ji <clears throat> du série yi la ñuy joué rek am borom kër mais ah borom kër daal lu yàlla di tudd lu yàlla di tudd. parce que période bii nii yëpp actrices yi rek la ñuy maye bañ nañ ba léegi xale yi sax dañ naan boo feeñul si série yi duñ la takk. ñoo xew defim nañ. actrice yi waaw fi mu ne ñun ñoo xew tendance la wala wala wërsëg la bu yàlla ubbi ci jigéen ñi léegi waaw yàllaa ñu geestu rek yàllaa ñu geestu rek actrice tamit xaar nañ lu yàgg yàllaa ñu geestu rek d' accord euh, euh, naka nga gisee sa nawle actrice yi gis naa fi ñoom bébé Eva gis naa fi euh, actrice yi nekk ci seen i sénégalaises yëpp bàyyi seen yite tey la dimanche ñu bari dañ doon reposé wu mais ñu ñëw tey teewal la donc lan nga yëg waaw naa lu lu foor a foor di gërëm artistes yi fi yi fi ñoom bébé ba ñun ñëpp képp bépp artiste bu fi teew rek maa ngi koy gërëm bu baax a baax bu ko sant parce que temps yombul temps yombul la sa fait que tey jii ak dimanche nu mu xatee ñoom ñëpp ma tourné gis leen dama kontaan. sérieusement. bi ñu nee takk dañu lay maye ñu ne sëyu célébrité euh, say parent lan lañ la njëkk a parce que fii au Sénégal euh, c' est une tradition boo siiwee rek ñu ne sëy ba ñaanuñ ko yàlla nangam ak nangam am ay wax yu ñu wax donc du ñàkk am na ñoo xam ne doon nañu sëy ci seen ay waajur yow nga nekk ci milieu showbiz bi ngay sëy si dégg nga kàddu yooyu sëy sëyu célébrité nangam ak nangam yu mel noonu euh, boo koy dégg dalay galvaniser galvaniser wala dalay yokk motivation pour nga gën a toog ci sëy bi donc euh, yan commentaire ngay def loolu yow non man loolu su déggee daf gën a motiver pour ma toog sama sëy parce que le fait que ñu ne ñu naan jigéenu artistes yi du ñu sëy euh, jigéen soo bi du ñu sëy loolu ça me fait mal parce que dañ bëgg nañ sëy sii si addu ñu sëy dañuy sëy ba mu neex dañuy sëy parce que dañuy wax euh, ku nekk ci showbiz du am temps wu sëy du ah, sa jëkkër comprendre la rek man moom yàlla def na ne man sama borom kër man sama xarit la moom moom moom su ma waree dem tournage sa fajar la ma yee 6 heures du matin la ma yee jugal nga sangu nga dem julli préparé nga dem tourné kon kooku comprendre na ma bu baax a baax ndax maa ngi koy tooñ un ma naan ko soo ma takkee de damay damay arrêté filmer mais dafa mel ni comme ku tiit pourquoi ngay arrêté kon kooku taxawul pour tere ma sama liggéey na la nekkul ci nekkul ci métier bi euh, euh, waxtaan daan na la wax doon na la seetaan di jooy ci yow yu mel noonu naan la dama la doon seetaan di yàqam ci say séquence di ñëw parce que yénn saa nga nopp nit ki di ko kot ci série bi te doo gis séquence am que seen seen intimité di waxtaan yu noonu daan nañ ko waxtaane si soo feeñu loon damay zappé yooyu <laughs> da doon dem di làkkatu nee na du daaw ko dafa daan te seetaan mu naan gel bii nii regardam daf maa neex léegi nag mu dem ba seen waa kër remarqué ne moom daf may bàyyi xel mujj gi bu koy seetaan day dem ci biir d'accord donc moom dalaa faawoon avant mu lay nopp waaw moom daf ma faawoon parce que daf ma doon topp fu nekk moom fu ma dugg ma dugg fa daf ma faawoon lan ngay wax sa nawle actrice yi nekk ci métier bi euh, yàkkamti lu mel nii am na ñu siy dugg sax pour sëy comme on dit rek jeux série léegi opportunité bi ci am mooy mën nga ci am xaalis c'est bien mais mën nga ci am jëkkër ju baax comme mën nga ci am jëkkër ju bon am na ñoo xam ne sax dañ siy dugg pour am jëkkër lan ngay conseiller jeune génération bi nga xam ne ñu ngi si yoon bi di di bëgg loolu non non bu nekkee ne mm, ci ci genre série jëkkër moo leen ciy duggal man je préfère ñoom ñu bañ a excès parce que jëkkër du du da ngay ñëw ci série yi wane sa bopp rek persa rek ñu tàgg la non non non góor yor na ay milliards te góor yor dërëm bokk ko ak yow comme xam kon du du du da ngay dem jouer ji série rek du da ngay dem jouer ji série rek euh, genre da danga war a am jëkkër forcément man sama jëkkër nekkul ci milieu xamul milieu ne joué waarul fenn moom terewul gis na ma gis sama personnel mu ne ko mu takk ma bay

ñun ñaar ñoo doon ànd di dem tournage di yenn suba ba ngoon jot man man su ma gisee sama papa nu muy dundee damay gën a defaraat samay toogaay parce que sama papa gisuma ko ci lenn lu ñàkk fayda barki alxuraan xam nga góor nga nekk ci yenn yi jii doo ànd ak sa doom di yendoog moom tournage suba ba guddi jot xam nga li ma la mais sama papa sama papa su sama papa nit ku baax la billaahi wallaahi wal kitaabi nit ku baax la nit ku bëgg njaboot nit ku mën a sonn ndax njabootam ñun bañ sama yaay danaan ko dangaa ragal say doom ñun lu ñu bëgg bëgg na ko lu ñu bëgg bëgg na ko waaw ah, moo waral moo waral sànq ma tuur rongoñ ndax sama yaay jàmbaar la résisté naa ba sonn mais mënatuma woon moom dafa dund lu nekk muñ lu nekk jaar fu nekk ndax ak njabootam tey ji bu demee ba ba tey bis bi ñuy takk doomam jour boobu ci lay tuxu di dem ci këram gu bees macha allah yàlla na sant yàgg démb metti woon na torop mais tey jii yaakaar naa ne fii nii ku ko fi ñeewul ñeewu fi kenn lu ko naqari woon ay doomam teg nañ ci loxo. sama yaay dafa nekk jàmbaar sëñ bi jàmbaar loolu loolu tënk na ay wax barki sëy dinaa mu xamante sëykat dëgg dëgg dëgg dëgg muñ kat man moom man man lu yendu ci man fanaan sama man loolu àdduna xam na lu yënd ci man fanaan ci sama yaay wax na bu ngeen ko dékkee micro di leen ko wax man cerax sax bala ma ko jënd damay laaj sama yaay pare loolu moo ko def ci man ba ñu gënee nekk xale ba ñu mësaan a tëdd dañuy tëdd nii mu tëdd sunu ginnaaw jiital ñu di ñu yedd ba fajar loolu c'est très important na ko waajur di dund ak seen doom yi di ñu yedd ba fajar wallaahi azim man ak samay rakk loolu loolu yar la xaaju guddi la sama yaay di wax ak ñun ba fajar ba tax na man du ma demee fenn sax bu ma bëggee bu sax su ma xalaatee sama yaay damay defaraat sama toogaay. sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek yéene naa leen lu ëpp loolu kër lañ kër laa def tey suba yéene naa la neen incha allahu rabbi.